ñu ngi wax waa population bi bi yëpp ñu teel a jóg jox def élection yi fulla ak fayda dem voté ji non pour que au soir bu ñu dépouillé ba pare non bi gagné Sénégal gi yëpp def ko Macky Sall xam ni lii mu bëgg a def Sénégal du ko nangu tey du ko nangu ëllëg tey constitution bu bees bii bu ñu ko votee Macky Sall jàll. mën naa wax ni sama mandat dafa commencé ci constitution bu bees bi bu àggee deux mille dix neuf ba deux weesu mu ñëw ni ah man amaat naa droit defaat beneen mandat coow li ni waat kur Sénégal nag li ci dee bari na li ci sacrifié wu bari na tey jii dañoo waroon a am dépassement am tànk yu bees am jëm ci kanam jëm ci kanam goo xamante ni dootuñuy wax wax yooyu mais dañuy wax li nga xamante ni population bi laaj na ko ci njàng mi laaj ko ci santé bi laaj ko ci leneen as. gouvernement bi taxaw ci ni mu ci war a taxawee parce que tey boo xayma référendum bi ci wàllu alal nga xayma front social bi ni mu yëngatoo jàngalekat yaa ngi grève santé baa ngi grève am na ñu ñuy def formation ba pare fonction publique digoon na ni dina leen jël mënu leen a jël loolu buñ ko sakkaloon def ko ci askan wi je crois que loolu moom la askan wi di doon xaar ci moom mais xaaruñ ci moom ay. tripatriage constitution wala di xàll loo xamante ni nii sa intérêt bopp wala intérêt politique rek moo tax a jóg donc loolu tey duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg population pour di ko nangu ñoom ñëpp dinañ noote bon incha allah